bu baax a baax ñi ngi fii tey ci yaraax yaraax yàgg nañu dégg bile tur lan la yaraax di wundu taarixu yaraax ndax saa su nekk ñu dégg oto bu ne maa ngi dem ca yaraax léglég sax ñu dégg waykat bi waaye li ni mel waaye loolu yëpp tey dañu bëgg xam ak askan wi turu yaraax tey fan la jóge ñu dugg ci ñoom laaj leen ñu dikkaat turu yaraax lu muy tekki. yaraax. waaw maanaam lu yaraaxe quoi lu yaatu quoi comprendre nga ci côté yëpp mais mooy loolu gaa ngi koy dund de nice. tur bi fu mu jógee pour yow. tur bi maam Bukar Ñongu moo ko fi indi maam Bukar Ñongu quoi benn benn paa woon paa bu xam nga paa bu bëroon xam-xam xam nga gars yi maris bi sa ñoo ko moomoon maris bi si yaraax la bokkoon suñu paa yi ñoo xaw a cuune nii rek xam nga dem jaay ko yenn seen doom yi nekk ci quoi comprendre nga. sëñ bi na nga def. sante yal bu baax alhamdulilah xam nga yaraax. xam naa yaraax bu baax. loo xam ci yaraax ak euh, tur bi fu mu joge bon yaraax nag def nekk euh, bon koñ bu maanaam dafa dafa longtemps dafa yàgg. c'est ici fi nga taw ni sax boo xoolee dex la woon exemple fii ay fi nga taw ni dex la woon yàgg na man sax xëy na fekke wu ma quoi mais ci ay histoire maam yi nekkoon fii wa man nag damay vanvé damay des fois ma nekk fii des fois du mu nekk fii damay nekk Médina damay nekk yaraax. yaraax bi fu mu jógee. yaraax nag fa yàlla na xamoo fu mu jóge nag wallahi al azim waaw bu dee dégg rek rek en tout laa fekkee yaraax daal bëgg nga xam fu tur bi jógee te bugg naa xam fu mu jógee nag bu neexee yàlla jaajëf merci beaucoup noonu lañ déggandoowee askan wi ñoom ñëpp wax nañ seen xalaat ci yaraax fan la tur bi jóge waaye ngir ñu gën a mën a xam tur bi dëgg-dëgg fan la jóge la muy wund dañuy dem seeti ji cheikh ba mooy kii ñu koy xame sëñ Cheikh ginnaaw bi ma la euh, nuyoo. Mhm. nga baaxee ñu yaraax fan la jóge waaw ci liñ dégg ci mag ñi nee dëkk bi mu ngi jógee euh, mu ngi jóge ci caaro yi parce que am na jamono jamono wax pes am euh, mu sonal leen fa ñu jóge foofu ñëw fii ci dëkk bi léegi ah bi ñu ñëw ci dëkk bi leex ku ñuy wax laax bàyyi njagi si mu ànd ak ay ay kiwam euh, rakkam la àndal añu ñëw sañ ci dëkk bi waaye liñ ci dégg nag ñaari version lañ ci dégg leex benn bi 1911 leex benn bi ci officiel 1912 ci ni ñu ni ñu ko nettalee euh, wéyjur yi nettali ñu ko dañ na woon benn kilo woon euh, dex moo fi na woon yaraax tur bi dëgg-dëgg lan lay tekki. waaw loolu nag moom euh, suñu kii àggu fa mais yaraax niñ ko waxee comme yaraax maanaam bu njëkkoon dafa ci woon yaraaxoon bon ñun la benn version bu la ci am léegi nag euh, lu ci gën a xóot am na ñoo xam ne mag ñi maanaam ñoo ci gën a euh, kii. développé waaw développé. jërëjëf.